di rafetlu tànk yi nga xam ne def na ko ba ñëw fii ci Touba ngir bis bi nga xam ne ñaari bis yu daje la muy bisub mbale ak bisub jëmbatum garab kon bala ma dugg ci njëriñu garab ndax du gudd ndax kàddu yi day gàtt mooy jot la cantuk sëñ bi ak ngërëmam ndax xam na responsabilité bi nekk ci sa loxo mooy responsabilité bu diis muy yanul Sénégal ñëpp ku tiit wala mu jaaxle walla so mu am sola sax xel dem ci yow loolu di gënu koo diis kon kum nekk ci yow doo tala lekk doo tala nelaw bi nga fi toogee léegi nag yàggagut ndax ëppagut ñeenti weer waaye bi toogee rek li nga njëkk a def mooy xam diine ni mu mel ci lislaam nga siyaare kilifa diine yi njëkkee ko ci moom loolu nag yëg na ko sa yoonu tey wii itam xam na ne Sénégal gépp yaatu na te fu ni mën ko faa def nga tànnaat Touba def ko fi loolu jëf ju rëy la joo xam ne tuutiwut ci moom kon mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaaral yan bii nga xam ne ci dogalu suñ borom suñ borom ko teg ci sa loxo yàlla na la ko woyofalal ba fa fa nga bëgg a yóbbu réew mi yàlla dimbale ci kattan ba nga yóbbu ko fa ndax réew dafa diis waaye suñu boroom nag wa saadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu man yasha kon ku mu ko jox rek danga la ko téeñal kon mi ngi lay ñaaral bu baax di rafetlu it njëmbatu garab lii ndax garab dafa am ceslaay lu dëgër ci lislaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu bari ci njariñul garab kon jëmban garab lu am njariñ la ci nit ki bi muy dund waaye bu faatoo njariñ la ci moom njariñ la it ci àdduna ndax xam ngeen ne fii jamono toll bari na lu àdduna si di daje ci réew yi muy muy li ñu tudde taxayurul mu naax te mooy changement climatique bi am fi daa sedd di tàng fii sedd di tàng di di di wàññiku ak ndox mi di gën a wàññiku wala muy def mbënd mu bari bari loolu bokk na ci garab di ko indi yoonu murit nag yàlla def na naka jekk fonk mi ngi soññu bokki réew mi yëpp ndax loolu réew mi ko bokk waaye ñim sañ a digal mu taalibe Sëriñ Tuubaa nag mi ngi leen di jox ndigal ñu ànd ak ñoom ci xalaat bu rëy bii nga xam ne bu sottee réew mépp ko jëriñoo ndax garab am na solo Serigne Touba ca njaareem bokk na ci waxtaan yi mujj wax ak xay goo xam ne wax naa ne xay gii maa ko jëmbatoon ci sama loxo te màgg na ba may jëriñoo ker gi kon wane na ne yàgg di ma ci àdduna ñu ko fi wuute ñëpp itam tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbale mii nga xam ne bokk na ci xalaat yi nga njëkk andi moom bi mu nekkee Serigne Touba màggat gi bu ko masaan waate li muy njëkk a def. mooy woote am mbale tàmbalee ko ci boppam nag joxe misaal mooy comme nii nga def mbale mi bu ko ma santi bu ci poosam la koy def ngir wantaali bi yëpp ni ñu war a def Cheikh Mouhamadou Fadil bi mu dikkee itam noonu la ko wéyalee Touba boobu bi mu ko goree ba noppee daa santaane ne nañ fi jëmbaatil garab Cheikh Abdoul Ahad 1976 woote ba mu woote woon góor Touba belal ngir ay tool ba mu noppee dafa wax ne booba ëppoon na téeméeri junni garab yoo xam ne desoon na mu mu séddale ko réew mi ngeen xam ne réew mi ko war a bokk ndax lam laajoon nit ñi dañu andi lu ëpp mu ne digle naa nag ne bépp taalibe bu ko man bu ne na fexe ba bundu këram mu jëmbat fa garab daan ne nag ñëpp la war waaye ñun yoonu murid ñoo ci ndax ñun suñu der daay yàqu ci ne ñoo yàq àll bi ndax tool yi ñuy gor mu ne kon digalati naa képp koo xam ne. gorate nga genn garab nga jëmbat juróomi garab kon wax jooja daanaka mën naa dir si ba tey jii kon loolu ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñëpp Sëriñ Saaliw dégg ngeen mu wax xel kom bi mu ko goree dafa santaandi waat am jëmbat ndax loolu mooy aar suuf si mooy aar environnement bi mooy aar dund nit ñi ndax kaas gaz carbonique bi nga xam ne moom lañ ni di génne bu fi garab yi néewtoon doomu aadama yi duñ dund kon lu am njëriñ la. ñi ko fi wutuwaay ñëpp Cheikh Abdoul Khadir ba ci Cheikh Saliou Cheikh Mouhamadou Lamine ba ci as Cheikh Sidi Mokhtar bi as Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëwee itam. kon ne ci lim njëkk a def digle ne nañ jëmbat garab yi ci dëkk bi joxoon ndigal waa daayira Touba ci kanam ci njiital Serigne Abib mi ñu jëmbat ko fii ci yoonu Mbacké bi ba daaw mu jox ndigal ñu jëmbataat ko ci. ñaari waay yi nekk ci yoonu gàggu wi ba nëgëni daaw bi màggal Tuubaa gi jàllee ci weeru gàmmu wi mooy weeru septembre ci fin nawet bi la ma joxaatoon ndigal ne ma naa jox ndigal sëriñ am di sëñ Moodu Mbend muy xalifa général di Baay Faal ñu jëmbataat corniche bi te ba mu noppee itam tegoon na ci xalaat ne bu déwénee nañ fexe ba jëmbat cent bi ni ngir xam nañ ne loolu bokk na ci li wàññi tàngoor wi moo àndoon koog waa commune Touba Mosquée ci njiitalu sëriñ Abdoul Ahad Ka moo indi garab yi bàyyi faale def ko niñ ñu ko defoon kon nag bu yàlla defee nga ñëwaat tey jii kon fekkoon nga leen ci waaye lii ab soñu la soñu bi nag la ci ëpp solo mooy ñu fexe ba bu liggéey bi àggee ñu topp ko garab guñ jëmbat mu bañ a dee ndax seen i blaat ci biir wax ji waxoon na ne garab léppay dee. doomu aadama sax dana am ñoo xam ci seen biirum ndey la ñuy dee waaye mi ngi digal garab goo xam ne jëmba nañ ko bu dee dinañ feex ba jébbi ba mu jébbiwaat kon nag foofu la ñuy jeexale kàddu yi di sant ñëpp ku ma fàtte ku ma fàttee tudd di la jot laa cantu sëñ bi ak moom di la xamal ne euh, taalibi sëriñ Tuubaa ak sëriñ bi seen yitte jëpp mooy Tuubaa seen yitte jëpp mooy yoonu murit xam nañ nag ne bi nga fi toogee ba tey sa yitte jëpp jëmi nga ko ci Touba jëmi nga ko ci senegal gépp waaye cër bi nga di séddu Touba sëriñ bi xam na ko kon loolu cant ak ngërëm ak ñaanal la ndam ci li ci kam li ci sa rek lay def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh